yoona sar ñaari fan ginnaaw loolu ak céet am ca dëkku kana ca diiwaanu galile yaayu yéesu teewe woon na ko woowoon nañu it yéesu ca céet ga ak ay taalibeem ca biir xew wa biiñ ba daldi jeex yaayu yéesu ne ko amatuñu biiñ yeesu ne soxna si loo ma bëggal ndaxte sama waxtu jotagul yaayam daldi ne surga ya def leen lépp lu mu leen wax foofu amoon na fa juróom benn ndaa yu ñu yett ci doj yu yawut daan jëfandikoo ngir seen sangu set ndaa lu nekk mën naa def daanaka téeméeri liitar yéesu ne surga ya duy leen ndaa yi ñu duy leen ba ñu fees bay rambat noonu yéesu ne leen tàng leen ci léegi yot ko njiitu xew yi ñu daldi ko ciy yot ci jiite xew wa ñam ndox ma yéesu soppi biiñ xamul woon fu biiñ booba jóge waaye surgay tangoon ndox ma ñoom xamoon nañu ko naka noonu mu woo boroom céet ga ne ko ci xew yépp naan gu neex gi lañuy jëkke bu nit ñi doyalee ñu sog a génne ga ca des waaye yow danga dencoon gi gën a neex ba nëgëni firnde bi ame ca kana ca diiwaanu galile moo doon kéemaan gi yéesu jëkk a def ci noonu la wone màggaayam te ay taalibeem gëm nañu ko bi loolu weesoo mu ànd ak yaayam ay rakam ak i taalibeem dem dëkku kapernawum waaye yàgguñu fa màggalu yawut gi ñuy wax bésu jéggi ba mi ngi doon jub si yéesu dem yerusalem dugg ca kër yàlla ga bi fa demee fekk na ca ëtt ba ay jaaykati nag ak yu xar ak yu pitax ak weccikatu xaalis ya toog noonu yéesu ràbb ab yar daldi leen koy dàqe ngir ñu génn ëttu kër yàlla ga ñoom ak xar ya ak nag ya mu tasaare xaalisu weccikat ya daaneel taabal ya daldi ne jaaykat yi pitax ya jële leen fi lii sama kër baay bu leen ko def marché taalibe mi fàttaliku mbind mi cawarte gi ma am ci sa kër mu ngi mel ni taal buy tàkk ci sama biir noona yëwute ne ko ban firnde nga woon ngir dëggal ne am nga sañsañu def lii nga def yeesu tontu leen daane leen kër yàlla gii ma daldi koy yëkkati ci ñetti fan ñu ne ko nga ni kër yàlla gii ñu tabax ci ñeent fukki at ak juróom benn mën nga ko yëkkati ci ñetti fan waaye kër yàlla gi yeesu doon wax nekkul woon ab tabax aw yaramam ci boppam moo ko taxoon di wax ginnaaw ga nag bi yeesu deeyee ba dekki la taalibeem ya fàttaliku li mu waxoon daldi gëm mbind mi ak wax ja leen yeesu waxoon bi yeesu nekkee yerusalem ca màggalu bisu jéggi ba ñu bari gis kéemaan yi mu doon def daldi gëm ci turam waaye yéesu wóoluwu leen woon ndaxte xamoon na leen ñoom ñépp te it soxlawul ñu koy xamal dara ci nit ndaxte moom ci boppam xam na xolu nit